arbitre nee na Tapha Mbeur am na ñaari avertissement arbitre bi mi ngi ay assistant arbitre baa ngi laaj ay assistant arbitre sifflé na vingt heures dix-huit minutes Tapha Mbeur moo ñu wan ginnaaw tànk day joor Ada Fass moo ñu wan kanam tànk day joor Fallou Ndiaye Ndiaye production tuddee ko Joe Technique merci beaucoup à Joe Technique si làmb nga bokk moom la ñu tuddee làmb ji une journée des jeunes lutteurs un combat des espoirs un combat de déclenchement entre ces deux lutteurs qui sera le vainqueur qui sera le vainqueur yéen ko xam ci kanam ñoom ñaar ñëpp ci victoire la ñu jugee dafa am mbër Rock Énergie moo ñu wan ginnaaw Ada Fass Fass Benno moo ñu wan kanam ñu ngi too ñoom ñaar un combat

waa ji nee na ma boo moytul ñu dóor ko attention xaaral ma noppi on verra d'ici quelques minutes quelques secondes de balancement de bras Tapha Mbeur rouge jaune ou jaune rouge Ada Fass qui nous fait face Ada Fass songu na attention au perdu attention riposte door mu daanu door mu daanu daanu na Ada daan na Tapha Mbeur Ada Fass daan na Tapha la force qui a fait la différence Ada Fass qui a pris le meilleur sur Tapha Mbeur un combat de déclenchement Ada Fass na ci yoon Eh, waaye Tapha Mbeur am na lu ko bett waaye ndeysaan doomu parcelle bi woo pëp pëp pëp ndeysaan jàmbaar bëre nga jàmbaar mooy bëre mooy daanu mooy daan jàmbaar nga jugal ndeysaan ndeysaan mbokk